ñoo ngi dalal euh, tey jii euh, sëñ bi Moustapha Dieng euh, muy secrétaire général sortant bu UNAPAS UNAPAS muy union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal moo jiite tamit syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal ñu ley nuyu di la dalal si réew mi. Mm-hmm. Euh, monsieur Dieng gannaaw nag seen assemblée général ngeen euh, yëkkati euh, benn kàddu muy assises yi nga xam ne diggee woon nañ ko ci mim réew boobaak léegi léegi mu mat at ndax weeru mai la ko lañ ko diggee woon tey ñu gis ne yéen a ngi koy fàttali lu ko waral. waaw c'est parce que assises yooyu dañ ci amoon yaakaar. Mm-hmm. dañ ci ak amoon yaakaar lool naka jekk bi nga xamee ni président wax na ni dafa bëgg daje ak mool yi. ak ministère bi. Mm-hmm. pour ñu seet jafe-jafe yi. ba xam yan euh, saafara lañ ci mën a indi. Mm-hmm. ah dañ ci amoon yaakaar. Mm-hmm. te bi nga xamee ni it euh, président wax na ko ministère woote na ay ndaje. ndaje yoo xam ne ñun UNAPAS dem nañ fa. Euh, bokk ci ndaje yi joxe fa suñu kàddu. ak suñu gis-gis. gannaaw lool it ministre bi laajoon na ni nañu bind suñu xalaat. ñu bind jox ko jébbal ko. Mhm. donc boobaag léegi ñoo ngi toog di xaar di am yaakaar ni assises yi dana am. Mhm. wante boobaag léegi amul taxamuñu taxamul. comme ni nga ko waxee amoon na ay concertation ndax concertation yooyu la sori woon ngeen ci. ah sori woon nañ ci lool ndax demoon nañu daanaka ba nga xam ni. maanaam commission technique yi. Mhm. Euh, waxoon nañu ni bépp kuréel yi nga xam ni dañ ci war a dañ ci war a bokk. Euh, kuréel bu nekk yónneel li nga xam ne mooy sa gis-gis ak sa xalaat. Mhm. su ko defee ñu boole ko yëpp su président ñëwee nga xam ni lépp lépp lépp dina ko xam. waaw mhm. su ko defee ah ndax yaakaar lañ ci amoon. Mhm. gannaaw ñun ñëpp xam nañu ni ministère bi comme ministère yu bare seeni budget yi li ñu mën barewul. kon il faut muy am ay ay programme wala ay loo xam ni président rek. mooy seet si si mbaaxam. Mm-hmm. su fekkee mën naa ko wax loolu. Mm-hmm. Euh, am loo xam ne daf koy yëkkati jagale ko secteur bi. te secteur bi dafa bokk ci secteur yi nga xam tey ñoo gën a sonn ci mm-hmm. Sénégal mooy secteur bi ëpp li muy dugal alal ci réew mi ëpp li muy créer emploi ëpp li muy jariñ askan wi ndax même euh, soo gisee xiif amul ci réew mi askan wi sonn moo tax mais réew mi su fi jën amul woon su fi ay mool amul woon réew mi xiif dana fi am. ndax mhm. réew yi nga gis tey ñuy daw. Mhm. jóge seen réew yenu seen bagage ñëw Dakar fees fi dell. Mhm. yéen a ngi leen di gis. ah chance bi Sénégal am ñoom amuñu ko. dëgg la kon jën wi moo sawe askan wi ba tax xiif amu fi kon mu doon secteur boo xam ne kenn war ko sàggane. war nañ ci taxaw war nañ ko jàppale. et justement euh, pataaral googule yàgg na dafa mel ni euh, tey euh, ngeen jóg rek daal di ko fàttali ndax dafa am lu jéggi dayoo ci napp gi. napp kay ba mu jéggoo dayoo weesu na. ndax dafa gën a jéggi dayoo ndax xam nga ni ñun. Hmm. ku jaaxle woon ku nekk ci ñun ngay ñëw. Hmm. ndax mool gi da daan gis ku dem jàng maçon wala nga jàng menuisier wala nga jàng ferrailleur. Hmm. xëy suba bàyyi ko fa ñëw si mool gi. ndax mool gi soo ñëwee. suñ la yóbboo tey géej tey tey tey. Mm-hmm. dañ lay commencé jox tey tey tey loo def sa poos jox la ndawal loo mën a togg sa kër. Mm-hmm. loolu si napp rek la am nga ñëw di jàng métier tey ñu commencé la fay tey loolu si napp rek la mm-hmm. loolu moo taxoon ñu bare doon daw sax seen i métier mu di ñëw si mool gi. soo demee tey nga toll lu mel ne marché central au poisson tax soo taxawee quatre heures du matin da ngay defa ni yëpp ñoo ngi marché au poisson. soo demee tefesu yaraax wala nga dem tefesu ndar wala mbuur wala juwaala wala kafantin hmm. nga taxaw si tefes yooyu da ngay waat ni Sénégal yëpp si napp la ñuy dund hmm. kon nag secteur bu mel noonu suñu demee ba tey ña fa nekkoon di fa liggéey obligé fab ay gaal hmm. di dugg si géej gi di jaay seen bakkan di dem France wala Espagne wala feneen. nga xam ni jaaxle dikk na. jaaxle gi mooy géej géej gi amagul amatul dara wala. dañu gisatul jën ndax ñun ñuy napp jën moo tax. Mm-hmm. mais soo demee ba nga xam ne soo jëñee sa gaal yow da ngay dugg si géej gi yendu si géej gi fanaan si géej gi doo gis jën. Mm-hmm. soo demee fu mel na ndar. Mm-hmm. nga xam ne da nga daan bàyyi ba ngoon cinq heures jot nga jëñ sa gaal dem fanaan si géej gi. soo xëyee suba ñëw teer teer sa jën. léegi soo demee ñooñu dañuy yeb glace seen gaal dañ fa yeb glace ba fees. topp géej gi di wër dinañu def juróomi fan si géej gi pour am lu ñu mën a indi. kon nga xam ni situation bi métti. d'accord te loolu président daf ko war a xam. Mm-hmm. dañu war toog jàkkaarloog moom wax ko ko expliquer ko mu leer ci moom. Mm-hmm. xam ni moom rek moo ko mën a faj. Mm-hmm. te xam ni loolu dara waralu ko nag lu dul bato yi nga xam ne ñoo nekk ci géej gi mayuñu gaal yi jàmm bàyyiwuñu gaal yi ñu napp jën wi bato yooyu ñooy jëkkante ak ñooy jëkkante ak gaal yi ndax bato yooyu euh, doole ñu ñaam ak ak ak ak radar yi ñu am ñoom bala ñu jóge port xam nañu fi jën wi nekk janoon nañu jën wi bala gaal gi di départ di àgg foofu ñoom dinañu napp jën wi bàyyi gaal gi gaal gi du indi dara waaw loolu mënul continuer mënul wéy ma foogoon ne organiser nañu justement euh, lii di euh, accords yi ak euh, li nga xam ne moom mooy licence yi ñuy joxe a des bateaux étrangers wala wax leen fii ngeen di yem ñeneen ñi fii la yem et li nekk ci boto ci géej gi dafa ëlëb mool yi dafa yéem mool yi ndax guddi soo doxee ci géej gi yor sa gaal di dem li ngay séen si boto dafay mel na dëkk bu plateau da ngay séen loo xam da ngay yaakaar ni fii ci ville ville de Dakar la ndax lamp yu bare te lamp yooyu yëpp ay boto kese la. gaal yi mënuñu jaar fenn xool ma tey am na gaal yoo xam ne dañuy dem war a ñibbi si. Mhm. nga toog ñetti fan doo leen gis wala ñaari fan. nga jëñ sa gaal dem seeti leen. xottu gaal gu ñu dammat kese ngay gis mais kooku xam nga ni bëtoo ko mbëkk xam nga ni bëtoo ko rey te dañu lay rey ba pare du ñu taxaw dem seen mais bato yooyu yëpp enregistré wu nañu état du Sénégal xam na ñaata bato la jox ay licence yu fi nekk am na transparence yooyu yëpp yéen ñi pêcheurs yi nga xam ngeen ko xamee ñun xamuñu ko mool yi xamuñu ko ndax mool yi boobu ba léegi ñoo ngi sàkku ci ministre yi ni ko na saytu géej gi na saytu géej gi na wax ñaata bato moo fi nekk xam nga ñoom li nekk ci këyit yi hmm. ñun gëm nañu ne li nekk ci géej gi ëpp na li nekk ci kayit yi. d'accord loolu moo tax ñu bëgg ministre bi saytu géej gi ba xam yaata bato ñoo nekk ci géej gi. Mhm. ndax li nekk ci bato ci géej gi. ñoom mënuñu toog seen bureau di ko xam ñun ñoo ko xam ñun ñu dem ci géej gi ñoo ko xam. Mhm. kon li ñu bëgg mooy mu wàcc ci géej gi saytu bato yi ndax wóor nañu ñun wóor nañu ne li nekk ci bato ci géej gi moo ëpp li nekk ci kayit yi moo tax ñu bëgg ñu wax ka ni que na publier ministre bi na publier liste bato yi nekk ci géej gi. Mhm. waaw loolu la ñu bëgg. Ah. te nag ah, euh, union union européenne kese union européenne kese moom rek. Mhm. am na fi quarante cinq boto quarante cinq bato union européenne ponk lu bato yoo xam ne benn bato bu nekk mën na napp mën na napp euh, trois cent tonnes par bés. yooyu dañu xaj ci jooju Sénégal. te yeneen partenaires yi ñëwaguñu. ah wax dëgg yàlla. bu weesoo ñàkkum xëy gi nga xam ne ñàkkum euh, jën yi euh, ci géej gi dina ko waral euh, ñun tey lan lañu war a mën a xaar ndax dinañ mën a dem ba suñu dëkk tey ñu ne ñu jën dootu fi amati. ñu koy jéggaani comme ni ñuy jëlee yeneen produit di ko fi andi. waaw mais xam nga tey soo demee ba ñun suñu doom nga xam ni chance bi ñu amoon mooy ñun suñu doom suñu jàngee école ak suñu jàngul école. Hmm. ku judd rek da nga wàll si xaaroo gouvernement. Mhm. xaaroo politicien xaaro kenn. Mhm. am na at yoo xam ne soo ko amee rek soo jàngee alxuraan ba pare dañ lay dugal ci géej gi nga mën tedd mën teral sa waajur mën leen a si ci bi mën teral sa say say mbokk. Mhm. suñu demee ba suñu doom yooyu sànni si gaal yi di dem Espagne nga xam ni kay jaaxle dikk na. nga xam ne jaaxle dikk na la situation bi dafa nañu xam ni dafa garaaw. fu ñu ko yaakaar rek weesu na ko. président lu mu gaaw gaaw rek ñun xeeb nañ ko ndax yëf yi dafa garaaw fi ñu toll nii xëy suba dootoo gis jën woo lekk su ñu toogee ba tey ñu fam ñu ni tey euh, ceebu jën àddina bi yëpp tey ñoo ngi tiitaru ni patrimoine la mhm. jagleel nañ ko Sénégal Sénégal moo ko moom mhm. waaw te jën amatul waaw su jën amatul ceebu jën ndax dana amati sens ndax su ñuy wax ceebu jën jën a tax mhm. jën a tax. Hmm. mais su jën amatul ceeb bu jën amatul sens. amatul sens kon suñu nee patrimoine bokk na ci patrimoine bokk na ci kii su bobaa lu muy jëriñ kon daal vraiment ñun suñu soon suñu sogo ah euh, président gaaw a gestu mool gi gaaw a gestu nappkat yi dugal loxoom bu baax a baax a baax si napp yi. Hmm, hmm. ndax daal. jaaxle dikk na. ci jaaxle googule sax ñoo ngi wax ne pétrole euh, am na si mim réew euh, tey ñuy xamle ne tamit am na ay zone yi nga xam ne nit ñi dañ fi daan napp te pétrole feeñ fa li ni mel tamit lan lay indi comme gàllankoor. loolu nga wax nag mooy li nga xam ni moo tax benn mool nelawatul moo tax benn borom gaal nelawatul. Mhm. képp koo xam ne su wërsëg yaa ngi ko si géej gi tey nelawatoo ndax président. su xëyee suba fab géej gi joxe ndar mhm. euh, BP di fa tànk gaz mu joxe kayaar ñu ni déet na waaye mu joxe tëngéej ñu ni déet na waaye mu joxe sangomar ñu ni déet na waaye Casamance foo dem joxe nañ ko mhm. kon mool yi fu ñuy nappeeti ñun boobu jaaxle moo nekk suñu bopp dañu dañu xalaatoon sax ni président xëy na gaz lu baax la pétrole lu baax la vraiment bëgg nañu Sénégal su ko yàlla wërsëgalee gaz wala pétrole bëgg nañu Sénégal tanq ko jaay ko jariñoo ko. Mhm. parce que nu yëpp gis seen bopp. ndax bari na réew yu bari yoo xam ne tey seen àddina yëpp gaz boobu ak pétrole boobu moo moo ko defar. Mhm. waaw kon ñun aussi su doon suñu soxla Sénégal bokk ci pays pétrolier yi wante nag su fekkee ni dañu fa lépp ñu joxe ndoo ko moo mënoon nañu joxe ndar bàyyi Kayar wala ñu joxe Kayar bàyyi ndar mënoon nañu joxe Kayar bàyyi Sangomar. Mhm. su ko defee gaz yi am fu ñu nappee. mais suñu ndoo lépp te li ñuy joxe nag terewul mool yi ñoom xalaatuñu leen ndax président euh, comme président moom quelquefois da nga naan moom information yi mu waroon moom amu ko mm-hmm. ndax président toog na nee na euh, gaz bi ñu joxe ak pétrole bi du yàqal mool yi dara <laughs> loolu mooy li nga xam ne ñun moo ñu jëkk yéem président président est-ce que daañu wax ak moom est-ce que daañu wax ak président. kon jàpp ngeen ne amul information bi daal amul. info su toogee ni moom gaz beeg pétrole bii ñu joxe du yàqal mool yi dara. Mhm. ñun def ñuy yéem ndax soo ñëwee ndar. gis mhm. soo ma mhm. ñëwee. soo ñëwee ñun fi ñu dëkk nga taxaw si booru miir bi miiru géej gi. da ngay séen fi ñu installé pétrole bi soxlawoo jumelle soxlawoo lunette soxlawoo dara da ngay taxaw ni séen su dee guddi lamp yi dinaan ràññ takk. kon nga xam ni fi gaal yi doon nappe am na fu ñuy wax jatara mhm. jatara si ndar mhm. nekk si frontière Sénégal ak Mauritanie mhm. foofu lu mat euh, ñetti junne gaal dañ fa daan suturu di fa xéewalu di fa am seen wërsëg mais foofu la ñu dem foofu nga xam ne fa la jën wi daan jóge fa la ñuy dem samp fa plateforme bi nga xam ne mooy tibb gaz bi mais ñooñu ñëpp nag léegi nga ni doo leen dàmp doo leen compenser yàqaloo leen dara. Mm-hmm. daf ñuy daf ñuy yéem. waaw ñu daal ci guddi guddi gu biir setul dañuy toog. moo tax ñu am yaakaar ni il faut jàkkaarloo bi ak président foog mu am. il faut conseil présidentiel foog mu am. te yéen jàpp ngeen ne solution yi daal foofu rek la mën a jóge ci assises yooyu waxuñu sax ni fa lay jógee. Mm. yaakaar yaakaar ci am. Mm. ndax xamaguñu président suñu jàkkaarloo moom duñ fay xama guñ ko mais loolu rek mooy suñu mooy suñu. mooy suñu yaakaar bi mujj léegi. Hmm. suñu demee jàkkaarloog président te jëlee wuñ fa dara dañuy fab gaal yi ñu taal leen def leen mat suñu doom yi euh, départ dem Espagne. su ko defee Sénégal di importer jën. kon napp gi daal euh, ba mayul dina réer carrément. ci suñuy activité ëllëgu napp gi daal ñu xamuñu tuñ si dara. d'accord ñun ñu nga xam ne suñuy maam yi depuis le seizième siècle. Hmm. suñuy maamaati maam dañu doon napp jox suñuy maam ñuy napp. jox hmm. suñuy baay ñuy napp jox ñu ñuy napp ñun ñu jox suñuy doom ñuy napp. tey ñun xamatuñu ci napp gi dara. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Dieng Moustapha ngay euh, secrétaire général sortant bu UNAPAS. di secrétaire général syndicat national autonome de pêcheurs du Sénégal